xurufu xutuba jaddin bu ñu leen sukkoonee dañ leen def xalxala mooy baat bi boo ko sukkoonee ba pare da nga koy xaw a ubbiwaat day dal dikkaat maanaam day baj baji ak xo day yéeg wàccaat ñaari daraja mooy mooy boo ci taxawee mooy gën a fés bu nekkee ci digg baat xalil <coughs> xalxalatu ndax xalxala foofu loolu على درجة واحدة في بين درجة عند أدائها جمعنا بنكوي جوخي أنا بنكوي رف نح يبنو يمو أتاب قال لي في سنتي من دير الانقلقات ان خلق لا مرتبتان ياري اتاب عند شامي نتي واشام <coughs> كبرى بمك عند الوقف في جمع تخول الحرف المقلقل شرفني في قلقلة كم المحيط ahad yooyu ñoo gën a fës suura bu ndaw ida kaana bu nekkee alxarfu muqalqal araf bu ñuy def qalqala wasatal kalimat si digg baat ba awil kalaami wala si digg wax ja bu dee taxawoo ci daal boobu mooy gën a oyof comme yataam yadxuluun qad aflaha ahad boo ci taxawee booy jàng dem qad aflaha bëri mooy gën a fës قد أفلح المؤمنون وحسب هذا المذهب بو قال تنجرني تكون دينك القرقرة صفة دملو عربية وقام دفع قارفي دفلا تظهر دفعين إلا أن حرف الساكن لما يتعرف بن سكون حرف بن سكون رك مم لن يدف قلقلة أما بن كماسي كوكو دو أم قلقلة كون قلقلة melawu gaar si la mooy bu sukkoonee lay ñëw boo sukkoonu du ñëw melawoo xam ne zaatiye la moom xaraf bi moom boo commencé foo tuddee xaraf bi rek melawoo day ñëwaat comme jeex rek xam sa ko kon xalxala gaar si la dégg ngeen wayu ayidu dana dëgëral xaasar ay gis bi ibnu jazari fi manzumatil muqaddima ci wayam woowu di muqaddima ay su ba mu wax naan مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا إن ماذا مذهب وبين وبينا نغلا المقلقلا قلقلا إن سكنا بسكونه وإن يكن بنك في الوقف تتخو كان لينك أبينا ديغنا لا بسكوني تتخو وجه دنكو قلقلا مولير waaye boo ci taxawee nag ci lay أني a fés ñaari ngir yi ay lu mën a mu ihris xiiral ayol qaariwu yow jàngkat bi ala bayaani qalqalati saakin ci leeral qalqala aji sukkoon wa in kaana nem nekk na hada saakinu aji sukkoon ji mawquufan alay di luñ taxaw kaanat ci lay nekk al qalqalatu qalqala ba ab yena di gën a leer boo ci taxawee ci lay gën a fés kon fal masalatu masala bi ñaar la bayin ak abiyan bayin bu leer mooy bu fekkee taxawoo ca araf wu ñu xalxala sukkoon te taxawoo ca kooku bayin la abiyan nag mooy boo cee taxaw yi rek mooy état bu xalxala wala waadex aw dax waadex mooy lan mooy taxawoo ci xuruful xalxala yi aw dax mooy boo cee taxaw dégg ngeen dañ ko tuddee bayin ab yan waaye di awda yataam bokkut ak muxiitu boobu mooy gën a fés yataam kooku bayin la wala waadex muxiitu kooku ab yan la wala awda foofu moom maa sama mooy la tuddee na ko alal ma borom xam-xam ak suura bi nga taxaw mooy kubra bi bi nga xam ne taxawoo ci mooy suxra <coughs> amma misli yoon yi ñoom ñoom dañ ko def ci est-ce que du ñeenti dañ ko def akbar kubra suxra asxar ñu ne akbar moo leen mooy bi nga taxaw tam shadda waaye bu shadda bi zamanu shadda bi xam nga shidda boo koy jàng dafa am temps bu muy jël moom nga boole ko xalxala day gën a fés foofu nekkul ne xalxal bi nga yokk garaatam de shadda bi moo tax mu gën a leer noonu waaye moom bi taxaw benn mais ñoom jël boo xam ni dañ cee taxaw te am shadda muy benn ba muy akbar taxaw taamut moy bu nek ci digg baat asxaar nak moy buñ maas ñom buñ ko maasee dañ koy xal xal xam nga lool bokk do li ñëpp jàpp dégg nga ñoom étape lañ ko def mo la woon amal qalqala wa qalqala indal misriyin ci wa misra faqad farrauha qad nañ ko ila maratiba ci étape oxra yenen akbaru ma takunu moy bi gëna mag akbaru ma takunu li gën a màgg ci la muy nekk mm-hmm. mooy wattu damm ñu damm al mushaddad wala bëgg wata dumm te nga mooy nga damm al mushaddada araf buñ shadda comme alxaqu alxajju alxaqu alxajju ñu ne loolu mooy xalxale bi gën a mag lu tax parce que ñu ne da nga cee taxaw après dafa am sëdd wa ñu ne boobu mooy gën a fes wa suxra bu ndaw bi nag fi wasti kalima mooy digg baat ba comme yaqdiru al qadr ñoom noonu lañ ko jàppee wa asgaru ma takunu fa muy gën a ndawee mooy bu nekkee fi xarfil mutaharik caaraf bu maas wa zalika loolu li annoom ndax ñoom yaudduuna dana jàppee alqalqalata sifatan muy melo laazimatan bu takkoog baat bi kon ñoom bu maase sax dañ koy xalqala hmm? waaye dégg xam nga xul wala a koo xalxale foofu parce que dafa maas maas yi foofu boo ko bëggee baj baji noo koy baj baji xanaa nga ne xul xul xul dafay métti nag moo tax daal mën ngaa jàpp su ma saf ñu ne xalxale si fa bu gaar la aari de bu ne nga ne may yàqoo noot dana baax waaye boo ne xaala qoqoqonaa da ngay sonn xaala qoqoqonaa rek xagi amul xalqala xëy na ñoom dañu dafa nëbbu rek waaye mu ngi fa daal <coughs> bu nekk di ko jéem a bëj bëjel nag. arafuñ maas bokk na ne bëj bëjel a indi problème. wanu laa xaysa danañ seetlu anna ahla hada rayi ne ñooñ gis فصلوا تقلا بين ساكن ديجنت حرف السكون الموقوف عليه بنتهو المشدد بأم شدة والمخفف أكبر من تيتهو فك أم شدة وحقيقة الأمر لقد جنبي ما أنا زمن القلقلة نك زمن القلقلة والاتكاء أكسكون لكم عليها شي في شي قلقلة بوب في المشدد شي بن شد أكثر موجب أب ما أنا حرف القلقلة بوجهته هي تمشدة تابن تعرف موجب أب lu tax la ann xarfal mushadda na xaraf mushadda bi bi zinati xarfayni bi zinati xarfayni dafa yore poids ñaari xaraf sukkoon ak masque la yore amma sawtul xalqala waaye bu dee kàddu xalqala gi rek moom ci mushadda bi ak mu xafaf bi ñoo yem maanaam buñ sadda ak buñ saddawut ñoo yem foo moom buñ sadda mu maasul dafay tolloo leen mu xafaf bi nga xam ne saddawuñ ko bu dee ci kàddu gi leer naa ndax ñun نقفل نغفر دنيي تك المحل دي ген وايبا انا حرف في اول شي عرف نيك بي ونو باعد سوري انا حرف ثاني شي عرف الحج جو li ngay def moom muxiitu booy njëkk tudd di ko tëj di sukkoon da nga koy tëj booy wàcc war sa kàdd nga sori tuuti loolu moom bu sadda beeg bu saddul bi ñoo ci yem xoolee ñoom ñaar yëpp ñoo ci yem fee li ko waral mooy fee jamono bi dafa gën a yàgg ndax sadda bi ñaar dafa yore poids ñaari xaraf tudd ñaari xaraf mooy gën a yàgg tudd benn xaraf mais ci wàllu xalqala bi yëkkat kàddu gi tëj ko wàccewaat ko rek la ñoo ko yem moo tax gars yi defuñ ko ñaari étape kon daal xalxala neen boo cay taxaw mooy gën fës bu nekkee ci digg bi loolu rek la <coughs> boo cay taxaw mu sadd ak mu ñàkk sadd yëpp benn la rek kéefiyatu adaaw xalxala naka la ñuy joxee xalxala ndax danga koy jox benn masque ci masque yi wala danga nga koy euh, baj bajil kàddu gi noonu rek waaye du jéng jëm ci benn masque wutee nañ ci ci ñetti wax moo ci gën a siw مني المشهور لغا سيو من ذلك سيو سلاس الأقوال نيت وخلا مني أن حرف المقلقل نك حرف وني قلقل يتبعو داي توب حركة ما قبله ماسك لك جيت وعلى مرو لغي جبيت وم قليل لتتر لن مرام داي خول ماسك بك جيت لنك ماس رك حرف لغا يرف قلقل نخاوكو ماس ماس بوب كم يقدروا comme que fata jiitu da nga koy mën da nga koy jox xaw a jox maska fata mais loolu gënu dégg nga ñu ne mu xalxal yekkun day nekk aqrabu di gën a jege lil fata ñeel fata maanaam fata gën a jege ak lu mën a xew comme mu xeetoo da nga ko jegee lal fata wa hada li ma moo ne xam ne yamilu dana jeng si moom adudun mbooloo ne ay matti si njiit ñi ba maamul luñ jëfeere bii ci moom ñu ne da xool masque bu ko jiitu rek nga mel ni lu ko xaw a maas masque boobu doo ko maas nag waaye booy wàcc masque boobu nga koy jox xam nga boo koy sukkandiku moom la nga koy tëj booy wàcc nag jox ko masque boobu. dégg nga comme al dégg nga daar. miqdaar nga xaw ko wàcc ci kasra na kasra ko jiit ñu ne déedéet toujours fata rek miqo miqdaar waaye yëpp gaa yi daal gënalu leen nga bàyyi ko sukkoon ko mu leer nañ moom moo ci gën ñeneen ne am na xarful mu xalxal xaraf bu ñu xalxala saakinoon day sukkoon lisa lii moo tax léegi bu day war an laa yu xalata ñu bañ a jaxaseeg sawtuwaa kàddoom bi xarakatin ci benn masque mi ne ci maska yi na nga ko sukkoon rek kaddu gi yéeg wàccaat comme mu xeetu waaye nag bu ko jegee jegeelal dàmm bu ko jegeelal fata bu ko jegeelal kasra mm, dégg nga mu ngir mu topp masque yi ko jiitu moom day sukkoon wa bi ci xalaat bi ne naa xus lañ jàpp ni kon li gën mooy nga sukkoon ko rek sukkoon dina moom foo mu yëngatu dal mm. mais bul nangu mu gën a jege benn masque maanaam bul mel lu koy xaw a maas loolu mooy masque bu mu jàpp am na ñu koy toppale masque lako jitu amna ño xamné ñoo dañ koy xawa a jéegaleel fata toujours bi nak la wax ne mom wérut amma antuma la waaye ñu jéngal xalqalatu ilal kasra toujours mom mu jege kasra rek jële kasra jitu ko kama nas moo comme ni ñu dégg min adadin ci mbolo min alqurdaa yi ci jankati xamna nga xam ne naa moo xeebte masadd xaw koo jegal kasra faadaali amru mbir la xeyru saxin wérut fi ixtilaati ci jàng boobu moom da ko dàq complètement xanaa kasala jiitu ko kon su ko defee xalxala <clears throat> day sukkoon rek sukkoon gu fés gu dóor dalaal rek wàccaar rek la mulaaxasaat li ay seetlu la law maarat bu jàngoon al xalxalatu ilaa xarakatin ci masque mais xarakaat ci masque yi la summee dañu tuddee zaayikulu ixtilaasan ab cof xam ngeen cof mooy gaawal araf bi bañ koo tudd tudd gu wér nee na boo boo ko joxee benn masque dañ naan da ngaa cof xalxala gi wérut mooy tudd bu gaaw min uyubi tilaawati mu bokk ci ayibu jàng alquran bu dee ànd xafsa ci waa xafsa te te dana jeexit alxalxalatu xalxala gi bi sifaati xarfil mu xalxal شي ما لو عرف في القلقلة عرف مين قلقلة ما لو يميري دابا فين في قلقلك فتكون دانيك مرققة ديرين شوال مع المرقق ومفخمة يدجلكم مع المفخم فكيف عندك عرفوا نور قلقلة xam nga ruufu xalqi mooy xutuba jaddin xutuba jaddin am na ci ruuf yoo xam ne ci ruufu xus la daxtun xis la bokk xaaf xaaf danga koy tafxiim kon moom it boo koy xalqala dijji day gën a dijji wa may yàqu yàqu nuut danga koy tafxiim mais baa wala daal moom bokkut ci mim masad kon bu fekkee arufu xalqala bi dañ koy tafxiim boo koy xalxala foo mu dijji gën a dijji gën a fës tafxiim gi foo nga indiwaale ko bu fekkee da nga koy tarxiix tarxiix gi foo nga indiwaale ko hmm? dégg nga too tamit xam ngeen too dañ koy tafxiim ndax si xusa ndax tin tin gaa noonu xëy hmm? ترى ما دين سموانتي القلقلة في كلمات آتية شبالي لك هنا بعد كده رك رطب العبد الذئب الرهب ترى ما دين سم ولبم نورا دين سموانتي التمي جرامي بين المقلقل المخفف والمشدد أنا بعد بيبوشي تحوي بقول في القلقلة na nga bàyyi xel bu sadd bi ak bu bañ a sadd bi yëpp benn la rek waaye sadd bi di temps yi dafa gën a gudd rek alfalaqu alxaqu yaxruju ak alxajju falaq ak xaqu xaqu moom dañ cee sadda falaq sadda wuñ ko yaxruj sadda wuñ ko alxajju alxajju dañ ko sadd xadd ak radda الباب الجب اي بي دافا ام سد ام دو بوغ واخ رك ني ني سد اي دال دافا بوغ ترق كي دور رك تفخيم دو نحذر نني مويتو من قلقله الضاد خم نغ الضاد بوك تي روف قلقله كون بول و ادو ادرب دارت اضرب اقاب bul bu ko xalqala doot parce que bokku ci wolof yi wala xalqala kaaf tamit léeg-léeg ñu gis ñu koy xalqala ak ka bokku ci wolof yi ñu war a xalqala doot tamit bokku ci naxdaru nañ moytu an naxtima ñu mottali sawtal maddi awil xalqala bil hamza booy madd baat bu ko mottalee hamza comme dégg nga يا أيها نني نني يا تجيكو عمد يقل بو يقل قل بعد بكو إيه؟ همسة دينغا أنا مدرب ال ميم محيط <laughs> boo ko defee hamza rek mu yàqu muxiit muxiit ta nga sukkoon def si hamza loolu bëgguñ ko dégg lii nag yenn yi da koy moytu la fekk yow xëy na sa gox bi nga nekk def duñ ko def mais moom gox mu nekk gis nañu koy def ci téeréem ay yàq yoo xam ne nii fi nga nekk mën naa am yow doo ko fa dégg mais boo gisee moo indi ko mu ngi tan bii di bàyyiloo xel ñeneen ñoo xam ne moom gis na ne dañ koy dañ koy def Hmm? andi baat yoo xam ni xëy na gis na ne gars yi bu ñu koy tafxim bu ñu koy kii dañ koy yàq mu andil la ko yow te mën naa am sa gox bi nga nekk doo ko fa yàq léeg-léeg mu nekk yàq boo xam ne dafa siw ñëpp koy defandoo mais fii xam nga xalqala wala madd ba koy jeexalee ko a sa bëriwul fi ahruful xalqala ahrufu xalqala yi kulluha shadida majhura ñoom ñëpp shadid dañu boole shidda ak jahru boo lottalee ashiddatu sidda ga fi xarfil muqalqal ci roof muqalqal daxu fa day lott alqalqalatu sidda gi bu fesul rek qalqala gi du fes kon fata takuna pour mu nekk alqalqalatu ko fi akbali fi akmali suratin ci melo yi gën a mat laa budda du mën a ñàkk mën a itiyaan ñu indi bi siddati bisaklin bi shaklin ci melokaan saxihin bu wér xarfu shadda bi moom foo nga indi ko bu baax pour nga mën a qalqala bu baax kon su ko defee li mu bëgg a jàng rek mooy xalqul azhar boo ci taxawee mooy gën a fës ci bu fekkee nekkut euh, taxawoo ca dégg nga mu bàyyi loolu xel nag bu ñu ko saddaa boo si taxawee ñu sadda ko tamit boobu mooy temps bi mooy gën a gudd waaye ci jamono xalqal ci wàllu xalqale gi moom benn rek xalqale gi sukkoon kese la li gën a wér mooy doo ko jàngalee jox ko benn masque dégg jox ko benn masque daal moom ixtilaaf la ko jàppee coof xalxala gi bañ koo matal daal booy xalxala xaraf boo xam ne ci worofu tabxiim yi la bokk mooy gën a dijji mooy gën a fés da xam ne ci worofu tarqiix yi la bokk dégg nga su ko defee xalxala yi doot bokkul si mooy la moytul di xalxala doot naka noonu it booy xalxala bu ko bul taxaw ci hamza naka noonu booy madd bul taxaw ci hamza waaw ko defee lii daal mooy li nga xam ne moom la jàngale ci bunt bi hada in uridu l-islaah mastata'tu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh